benn tubaab dafa woo Serigne Babacar ni ko dama lay laaj tariqa yi ci senegaal bu ci bu ci gën ci El Hadj Abdoul bii toog laa ko déggee mu ni Serigne Babacar benn tubaab daf ko woo ni ko kaay nu jëw dama lay laaj tariqa yi ci senegaal bu ci gën mu ni ko ah dama bëggoon nga wax ma militaire ba ca marine ba di marin ak militaire ba ca caserne ba di soldat ak ka ca gendarmerie di gendarme ku ci gën mu ko ah, ñoom ña France la ñuy liggéeyal di mu ne ko ah, benn la ah mu ne ko benn la yaa xëy waaye fekk ni itam ñaari at yi budul ko nag mëtam ak xareem ba tey musiba am ndax kuy waaxu di wax ci sa turu kilifa musiba te kenn wax loowu kenn wax bu kilifa ya amul yitte rek musiba am waaw musiba am ba tax kon nag di ci bàyyi xel baax na ci façon bu nekk nag bu nekk dafay dikk am na lu paase nu xare ko ba noppi am na lu nar a ñëw bu nu ko xarewul musibaam ba ñépp nekk ci jàmm ba ñépp nag nekk ci jàmm ndax dama amee pari match dem ca Tiwaawan booba maa nga Ndakaaru fekk Serigne Babacar si toog yoor yoor di naan café ma ne ko pari bi de dafa am article buñ ci bind ci kilifa gële nek maro di wëy juru hasan de ba fa nek tay muni nak ko jangal ba di ko ko jangal ñu wax ko waxin wu ñak teggin mu teye mënatul nan kafe gi muni ma xana kiko bind du borom xam-xam ay ko ha ah, kay borom xam-xam bu deung la muni ma kon de tiit na ndax ku xam koku ni mu tollu ci l'islam di sotu yonenti bi ñu attana wax lu bon lii ci deram kon di tiit naa ndax yàlla dana jéggal kat ki def lu bon te waaye ki xam ba noppi def lu bon yàlla du ko jéggal waaw ba moo tax kilifa yi muñ rekk moo leen dese Maktoum Prod te muñ gi nag njaboot yi rekk leen ci mën a dimbali daa am na ñoo xam ni seen kemtalaayu yàq ëpp na

moo tax lu nu ngemb rek bu nu yeboo xeeb lu nu ngemb bu nu yeboo ko am na yàqkat yoo xam ni bu ñu sañoon tey àdduna bi dafay xëy rek a takk ku ko xam nag xam na ko ku ko xamul xamu ko ba tax na kon rek nu dimbale kilifa yi ci muñ